avocats dañu am benn euh, benn confrérie yi dañu am benn benn benn benn mbootaay bu tudd Batona euh, ki nga xam ne moo jiitee euh, Batona bi tey moo di maître Mamadou Seck mooy le bâtonnier moom moo remplacé Leyti moom nag moom moo ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci conseil Batona bi Nous avons décidé ni suspendre ki nga ne maître Diouf ci suspension suspension li tax ñu suspendre maître la Diouf ça veut dire à partir de tey nekkatul avocat li waral surtout plainte yi nga Ousmane Sonko ci parce que bu ni bi commencé maître lépp li nga xam ne fu saaga ñaawee li accusation bu farfelu jóge jël na ko teg ko ci ndoddoy Ousmane Sonko bàyyi ko moom rek waaye ay waajuram sax boole na leen ci yëf ya donc vidéo yooyu kàddu yooyu jëf jooju Maître El Hadji Diouf def di ko jëmale ci moom mooy waxoon naa leen ko ci njëlbeen wax leen am na plainte bi nga xam ne Ousmane Sonko déposé na ko au niveau du euh, mais deuxièmement benen plainte bi nga xamné déposé na ko chez le procureur général contre ki nga xamné moy mooy El Hadj Diouf boole ci ba ngeen di fatiliku newoon li nga xamné moy rapport rapport euh, décision bu procès bi nga xamné mo moo concerné Maître El Diouf ci affaire u siif bi ñu koy tuumaal feul ci France mais Ousmane Sonko jël na li nga xamné moy décision définitive bi parce que gannaaw bi ñu condamné mettre la jour ci première instance dafa def li nga xam ne mooy appel appel gannaaw appel génnaat na encore condamné mettre la jour pour euh, agression sexuelle moom dafa war a def euh, comment on appelle pouvoir en cassation mais defu donc bi mu toogee trois mois après décision boobu décision bi dafa nekk décision bu définitive décision boobu bu nekkee définitive Ousmane Sonko décision boobu lu jël indi ko ñoo tagal ko bâton yi ne dans un bâtiment normal ab avocat bi nga xam ne am na sanction ci lu mel nii am na condamnation ci lu mel nii kooku warul mën a nekkati avocat beneen encore mu xamal leen ni saaga yaa ngi nii wax yaa ngi nii boole ci mettre à jour bu leen fàtte lépp li nga xam ne pratiquement profession bi euh, nangulu ko nga xam ne profession bi daf leen ne avocat yi am na yoo xam ne ñu ko def wuru warutuñu génn comme ni maître El Hadj di defee parce que moom dafay mélanger les casquettes bu waxee lu ko neexee mu ne tey avocat la bu ko neexee tey mu ne il parle en tant que chef euh, chef de parti politique lu ko neex nag mu di ko wax di ko yekk nit ñi bu leen fàtte euh, li nga xam ne mooy lac de trop bi nga xam ne génne nañ ci yàggut nee nañ ñi nga xam ne ñoo desoon ca bateau la Joola am na lu mu ci waxoon ne en quelque sorte c'est comme s'ils sont responsables de li leen dal parce que ñoom ñoo nangu surcharge yi mu di euh, wax yoo xam ne wax yi garaaw boo xam ne heurté na sénégalais yu bari mais loolu facette la loolu détail la ci biir li nga xam ne Maître El Hadji c'est tout permis tout permis lépp loo xam ne kenn mësuta xalaat avocat dina ci yegg fii ci Sénégal euh, sama mag jooju yegg na foofu tax na la sanction elle est tombée il est suspendu fi mu nekk nii suspendre nañ ko ci lépp loo xam ne mooy métier avocat mais am na encore yeneen enquête yoo xam ne ñu koy topp ñaari rapporteur teg nañ ko ko ba li ñu xalaat dina dem ba li nga xam ne mooy radiation définitive du barreau nga xam ne dootul nekkati avocat dañ koy radier nga xam ne euh, euh, dafay dellu dem defi leneen mais du yëfu avocat dootu ko defati ci Sénégal ci lu mel nii ci lañu ñu jëm donc lii mooy euh, breaking news xibaar bu bees bi nga xam ne war na leen ko jox. lu ci lu ci cosaanoo wuñu Guinée Bissau. maître kenn laaju la foo cosaanoo. duñ la laaj dafa leer ba xam tëdd nga ak Adji Sarr waaw wala déet. te barke alxuraan te duma Adji Sarr barke Nabi Moustapha. xaw ma Adji Sarr mu mel. Hey, eh, le monde part en couille. <laughs> ñuy fen ba far gëm ba far gëm seeni fen. masuma. Eh. Jaga Adji sa, da ko tuddee masuma Diega Adji Sarr ba Peter ko tuddee Cheikhul Ibrahima Baba Ibrahima Baba Lamine Peter La Peter La Diouf ci Peter La Peter La Diouf mais c'est honteux. le Coran. man maa koy waat carrément seetlu sama der. Ousmane Sonko. Sonko. même le micro te laisse pas parler bàyyil Sonko. man tu la fermes. Sonko. man tu la fermes. Sonko. man tu la fermes. Sonko Sonko. waaw maître yow ñaata façon intellectuel ñoo am. intellectuel yi imbécile am na. mooy yow. intellectuel yi jaam am na. mooy yow. intellectuel yi traître am na. mooy yow. intellectuel yi escroc am na. mooy yow waaye choisir nekk intellectuel yooyu da ngaa choisir nekk. choisir nekk doomu xat choisir nekk doomu xaram choisir nekk imbécile choisir topp benn imbécile. waaw nekk bi ak bàyyi nekk intellectuel yooyu yëpp choisir nekk lool. Ah, ah. fii maître daal jaaxal.